jërë ngeen euh, mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek ba tey ñu ngi nii ci nga xamante ni mooy daayira xidmatul xadim ah ñu taxaw ak koo xam ne nag kenn dootu ko présenté mu di Serigne Moussa euh, dañ lay bàyyi nga nuyoog sopp yi lay siib. asalaamaaleykum maa leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di bu baax mboolem kuy bëgg télé bi rek maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. lan moo waral sa teewaay ci bés bi. ah bis moom li si waral sama teewaay moom ñëpp xam nañ ko ndax waa xidmatul xadim ndax jàpp gi ma jàpp maanaam ñoom yàgg nañ daanaka bis bi sax wallaay lazim bokk naa si ñi ko njëkk a taxaw wallaay waxi mot xadim di leen a dëgëral am question ñu bari dañ koy laaj tey ma am occasion jàkkaarloog yow mu di tey nga euh, di dund xasida yi en tant que xale. ah loolu moom day siy sant Sëñ Tuubaa rek ndax ñun moom dañoo judd fekk suñu waajur si xasida yi moo tax ñu judd nekk si kon nañ ñu ñaanal baax suñu borom gën ñu see dëgëral bu baax a baax. ndax nga koy dund a tànk que xale des fois du ñàkk nga gis say moroom di def naka surul noonu wala du dund naka surul noonu wala du ñàkk ñu lay woo ci naka surul noonu yow nga toog ci xasida du ñàkk des fois ngay dund loolu. ah des fois moom da ngay da ngay dund loolu waaye tout tànk yi daanaka fu may jàng lu bëri sax ñoom dañuy ñëw toog di teewlu daanaka dëkk bu ma dem su ma fa jàngee su ma fi ñëwaatee naa fekk ay tout tànk yu may roy. daanaka loolu bëri na loolu léegi waaw. ba relation nga am ak Baye Cheikh. Baye Cheikh moom sama xarit la moom waaw maa ngi koy nuyu bu baax sama xarit la moom nekk nit ku baax jaar naa ko baax a baax waaw. tey ban message ngay lancé ndaw ñi nga xamante ni daanaka du ma ni dañoo dëdd dañoo nekk ci ay caaxaan waaye tey nga leen di woo ci li nga xamante ni mooy liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. waaw ndaw ñi moom ñu ngi leen di wax ne liggéey baa ngi nii ki su bokk bokk tamit yomb na lool ndax. ndaw moom daanaka bu tollee si yoon bi seetaan da koy soxla moo tax góor góorgóorlu bu baax di jàng fonk suñuy waaju respecté suñuy jàng daal respecté suñuy waaju bu baax waaw. am na tey lan ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan. Hmm? tey lan ngay tàggatoo ak lay seetaan. Ah. soppe yi. damay jàng wala damay tàggatoo. waaw non du ñu may dara kay tuuti sax. ah yaa man suwaalu xayri indi dalal iskuntali bi karamin yaasal jalal yallaahu yaa xaribu yaa mujibu صل على الذي بعي تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال وصحبه المزازع السلام وكل يا دار وكن معي وكن لسائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائي الآيات السافية لك بما الأجور دافية jërë ngeen jëf mbokk ñi suivre comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii ba tey ci taakusaan ji nga xamante ni mooy daayira Xidmatul Xadim euh, ñu taxaw koo xam ne nag euh, kenn doodu ko présenté ci réew mi waaye nag kenn dootu ko présenté ci sunu micro bi mu di Tawfekh mbaay euh, Cheikh bi ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di bëggee di leen ziare bu baax a baax. di leen ñaanal di leen wax ni namoon naa leen di leen bëggee bu baax a baax. tey lu waral teewaay bi ci bës bi. waaw li waral teewaay bi ku ne xam na ni fii fii ngeen taxaw fi laa juddoo fi laa fowee fi laa defee lépp sa Modou fay bokk ci daayira bi di sama xarit di sama soppe ak jëwriñ Cheikh Faye borom nekkaab ñoom ñëpp di samay nit. waral yëf yi ci la bokk moo waral teewaay bi waaw. Euh, mais bala maa ñëw ci loolu naka ngeen ñuy waajee euh, li nga xam ne mooy 17 avril bi ku ne xam na ne fi mu toll nii kenn toogatul mu den benn date boo xam ne yow mi bokk nga ci ñi nga xam ne gën nañ leen cee ràññee. waaw non loolu moom pare nañ ko fii mu ne la ci des rek ren sëñ bi ñetti fan la ko def dem rek sant sëriñ bi bernde bernde yi waxtaane ko jàng xasaay di way ko. ñu dem ba déwén ñu ñëwaat ak jàmm mais loolu moom lépp mat na fi may wax ak yow. cant gi a ca des. waaw fan si yaa ngi naan est ce que est ce que est ce que Tawfekh génneewu ci lu bees. nañ ko xaar le 12 incha allah dinañ am bees tàq ci 17 avril bi. le 12 incha allah. mais lan mooy sa secret ba tey ay détails yu sew wala ay wax yu sew kenn du la ci gis kenn du la ci dégg aussi. waaw mooy sëriñ bi ci lañ nekk ci li moom la ñuy tàmbalee yam ci moom looloo tax duñ dugg ci ay détails waaw jërëjëf. Gentlemen, we Mẹ lại quay mau soxna jaar na ñëpp jub taxaw ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi nii ci cappaandaw bés bi ah, taxawa ki nga xamante ni ah, bokk na ci yi nga xamante ni wala sax mën naa ne moo jiite mbir mi ah, dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. Eh, ñoo ngi nuyu ñëpp rek góor ak jigéen mag ndaw. di jiital ci nuyoo bi yéen ñi nga xam ne yéen a yor lii nga xam ne mooy télévision bi di introsé ñi nga xam ne ñoo teew ci mbir mi am nañ mbégte ci yéen uh-huh. mbégte bi nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax tey bés bi xalaat bi xalaat bi nan la leen dikkee waaye nim ñu dikkee nim ñu dikkee mooy wax dëgg yàlla sant rek ci sant lañ ko tàmbalee woon tey ci sant rek lay mujjee sant ak rafetal ak doon tamit taalube boo xam ne. suy def mbir daf koy fas yéene rafetal ngir jëmi sëñ noonu rek lañ dikkee. mais mel ni sax da ngeen def euh, loo xam ne lu ñëpp rafetloo mooy ñu gis fi tey Tijaani ak Murit bokk benn jotaay. waaw loolu moo war a am ku xam ku ne xam ne looloo war a am suñu mag ñu baax ñi ñun ñi leen féete ginnaaw danoo war a rafetal ndax loolu la sëriñ si digle suñu sëriñ loolu la ñu digal ñoom seen sëriñ loolu la leen kon ku ci dëggal rek war ngaa rafetal waaye ndokk bi ñu rafetalee ñoom rawatina ñun waaw. tey eh, lan ngay wax ñi nga xamante ne tey a ah, yor nañ seen alal waroon dem investir ci diine yu mel nii dajee baax mais ñu ngi investir ci leneen. waaw ah, ñoom ñu yor alal daanaka boo dee xool ma leen ñaan. nañ nañu nañu gestu ñiy jëf day ndaw di dox ci lu baax ndax tey ji boo xoolee sponsor yële ñu bokk ci daayira bi donc seen seen seen seen entreprise yu ndaw lañ bëgg mu ngir di wane seenu njàmbaar kese lañ ci jub lu ci mel ni beleel kile lu ci mel ni Daaru Salaam Café Touba lu ci mel ni TMC Touba mécanique général lu ci mel ni Lamp Fall waaye lu ci mel ni Ndekap lu ci ni Porokhane bi sax ak njàmbaar la kon nañuy dimbali ñu nañu nañ koy seq ak ñooñu nañ koy seq ak ñooñu. tey ban yëg-yëg nga am. li ma yëg ni ma waroon a fekkee sax fekkoo ndax sama xol a seet waaye sama xol seet na ci yéen it sant ngërëm rek ñeel yàlla guddal seenu fan. jërëjëf yal fi des a déwén ak jàmm. site bii nag waxuma site waaye yal na ko ñëpp suivre. amiin amiin site devenir suivre. ci barke Sëñ Fall.